sen de gidiyor gis loolu dafa mel ni gars yi euh, renfort lañ doon indi <laughs> en tout cas doy na waar c'est compliqué gars yi dindi nañ li nga xamante ni moo nekkoon ci tali bi xeer yeeg pono yi da ngay dóor ay gaz lacrymogène C'est compliqué. oto yi ñu ngi commencé jàll ndànk-ndànk parce que xale yi ñoo bari woon li nga xamante ni moo di yoon bi dindi nañu on nous signale actuellement Kër Massar aussi tamit euh, am naa yëngu-yëngu Kër Massar ma ngay yëngu maintenant la voie elle libre pour euh, ñi nga xamante ni dañoo baare yoon bi gis na léegi circulation bi neexaat na gars yi dindi nañ pono yi ak xeer yi nga xamante ni moom lañ ci tali bi bu ànd ak vigilance baax que bi ma tàmbalee gis bi dèjà arrêté nañ suñu benn confrère seen news bi ensemble euh,